waa Kër Mbisaan waa Pindo Joyin ak dëkk yi nekk ci alentour yëpp ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm cant bi nga xam ne nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem tey nag ñu am un immense plaisir daje fii nii nekk ay ndaw ñun kese te leen taxu ñoo jóg lu dul defar Fatick parce que li tax ñu bokk ñu booloo mooy Fatick ba tax na tey li nga xam ne moom moo ñu tax ñu nekk fii nii muy Fatick au cœur mu nekk suñu dénominateur commun Fatick au cœur nag dafa nekk mouvement bi nga xam ne ay ndaw yu nekk biir Fatick ñoom ñoo ko sos li tax ñu sos ko dañoo am ay njàngat ne ñun ñooy ñi nga xam ne ñu ñooy fàllee politiciens waaye ci fal boobu noonu buñ paree amaana dañuy nekk ci ay situation yu précaire dañuy nekk ci ay situation yu aussi des fois pour ñu jot leen day dañuy nekk day nekk ay problème ay difficulté ñu nekk ay ndaw nekk aussi ay ndaw yu engagé ay ndaw yu déterminé toog sur une table waxtaan càmbar jàngat li nga xam ne nii moom mooy jafe-jafe Fatickwaay ñu ne ñun dañuy porté wu sa combat nekk intermédiaire entre population bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité politique yi et les bonnes volontés ba bu ñu amatee jafe-jafe incha allahu bi li di mel ni feebar wala mu mel ni cas yi nga xam ne vraiment c'est un peu euh, complexe ñu ñu porté au combat boobu noonu loolu nag moo tax ñu xamante ba xamante ñenn ñi nga xam ne ñoo ay jeunes lañ nekk biir dëkk bi fii nii ku ci mel ni laatir ku ci mel ni aussi tamit mbisaan ak ñeneen ak ñeneen mun naa bañ a sax amaana lim dama dajal mais sama xol ak sama xel yëpp ñoom mu ngi ci ñoom parce que ñooy liggéey ensemble ay 23 heures ay minuit jóge nañu fii nii di ñëw Fatick di jóge Fatick ay une di ñib si fii nii te seen parents yi vraiment ñoom ñoo leen ko accordé. ci loolu ñoo ngi leen di baalu àq bu baax parce que liy tax liy am du lenn lu dul jafe-jafe yi nga xam ne nii yéen da ngeen koy dund man dama koy dund keneen ak keneen da koy dund ñu ne dañoo bëgg léegi basta mu daal di jeex. loolu pour mu am il faut que ñun en tant que des Fatickois ñu joxante loxo mais dans la main ñu ànd dans la responsabilité dans la dignité ci lépp loo xam ne nii ab doomu góor da koy def ñun ñu àndee noonu bu ko defee yàlla defal ñu jàmm ci beneen côté gi may waxee mooy ci politique dégg naa ay doléances yu bëree bëree bari fii nii te loolu bu soobee yàlla incha rab bi dinaa ko jébal ki nga xam ne nii moom mooy borom dëkk bi te xam bi ma ko xam ci lu ndaw li ma jot a xam ci moom xam naa ne borom yërmande yërmande la te xam naa ne aussi tamit kuy dox ci côté social la ci kaw loolu dégg naa lotissement ci kaw loolu dégg naa case de santé ci kaw loolu dégg naa. lampe mooy électricité ci kaw loolu dégg naa ndox mais doléance yu ñu ñooy àndandoo ensemble porté ko dem xeexe ko te incha allahu rabbi ki nga xam ne mooy le maire Matar Ba dina leen ko defal. gëm naa ne loolu noonu dina am parce que man dina jël sama. dàll dox lool noonu ak ñi ma àndal samay ginnaaw te bu boobaa incha allahu rabbi yéen waa dëkk bi dingeen ngeen toog jàkkaarloo ak Matar Ba lépp li ngeen xam ne bëgg ngeen ko ko wax di ngeen ko ko wax lépp lim leen war a wax tamit dina leen ko wax incha allahu rabbi ñoo ngi leen di baalu àq ci kàddu yi amaana mënuñ ko woon bañ a génnee waaye dafa nekk kàddum cant waaye dafa nekk kàddum mbégte parce que li mel nii journée culturelle ngeen déjee ko un mouvement waaye ci kaw daje boobu noonu ngeen xool kenn segg ko nekk yow mi nga xam ne yow yaay coordonné mouvement bi tuddee nañ la drapeau boobu loolu cant la loolu ngërmande la loolu vraiment fu ma ko mën a fu ma ko fu ma ko bëgg a mesurer rek da koy ëpp. ñoo ngi waat ñëpp di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp dinaa ne vraiment kontaan nañ ci boobu kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax te incha allahu rabi nañ àndandoo liggéeyandoo Fatick au nag woo na képp koo xam ne mu ngi ci dëkk bi fii nii parce que lépp ñëpp lu nekku ne nga ca ñëw leen ñu liggéey ensemble. te incha allahu rabbi le soir du 23 janvier le soir du 23 janvier nañ leen jóg fii nii lu waaye doon def na ko bàyyi ñu dem ànd liggéeyal liggéeyal Fatick te ko bëgg a liggéeyal Fatick nag dinga liggéeyal ki fi Macky Sall teg Macky Sall moom moo xool mandaté kenn ci leader yi nekk Fatick ne topp leen ci ginnaawam te ñun séeréer dafa am jikko yoo xam ne dañu ko nawe ba tey amaana kenn ci ñun ñu koy xaadim saaxo moom moo koy wax mu ne séeréer dafa yor culture bu riche ba jox ma benn benn exemple boo xam ne sëñ Saliou moo ko doon wax ci séeréer yi kon nag séeréer ku ko képp ku ko xam xamee ko jom mu am ay qualité yoo xam ne ay qualité morale la ak éthique yu nekk ci moom bu xëyee jàpp jàpp na waaye bu xëyee bàyyi bàyyi na ba tax na je lance un appel solennel ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi nekk ci ay xaw a nekk ci frustration dama leen koy ñaan laatir fexee la ñu gisante ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu jël combat bi jébal ko maire bi li ngeen xam ne bu waxtaan amee dina neex te incha allahu rabbi loolu mënul ñàkk di tuubaat di jégaluwaat merci beaucoup.